di sant eh, yàlla sunu borom mi ñu may ñu teewee ko ba fekke màggalu ren gi donc di ñaanal sëñ si di sëñ eh, Muntaxa Mbakke bu baax bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi eh, ci sunu kanam

Euh, ak euh, euh, en famille dañu am mbégte dañu parce que wax dëgg yàlla xalif bi li nga def li nga lu retrouvaille entre Macky Sall ak que Wade parce que gannaaw ay te Sénégal bi ñuy wax Sénégal de Euh, defe naa ne euh, loolu dafay firndeel que ne euh, jàmm jooju dafa mën a am lu muy lu muy jur. parce que bu ñuy wax it wax dëgg yàlla du question de président Macky Sall wala président Ablaye Wade waaye li nga xam ne moom la Sénégal di ci jëriñoo kon nag loolu defe naa ne ñun ñëpp kontaan nañ ci en tant que sénégalaise. salaatu والسفر